ñu dooree ko ak euh, préliminaire yi nga xam ne moom mooy euh, mat yi jëmm ci li ñu yóbb ci coupe du monde ci jigéen ñi nga xam ne seen at motul euh, ñaar fukk ñu jàpp rek na Sénégal moom qualifié na pour dem ci ñaareelu tour bi gannaaw bi nga xamee ne dafa témboo ak Sierra Leone fii ci Dakar kenn dugalul dara ci sa mais ca dem ba Sénégal dafa fekk woon Sierra Leone daru ko benn bal ci dara ba tax na qualifié na ci deuxième tour bi kam war a dajal nag mooy Tanzanie. Tanzanie mi nga xam ne dafa am ndam ci kaw Uganda ñu ñëw ci euh, huitième journée ci euh, ligue professionnelle 1 bi ñu jàpp rek ne génération foot moom US da ko daan benn bal ci dara jaraaf ak Teungueth FC dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa kaw morom ñaari tali dafa daan stade Mbour ñaari bal ci dara Mbour Petite Côte Dakar Sacré-Cœur da ko daan ñett bal ci dara et AS ak Casa dañoo témboo benn ak benn Ñàmbuur ak. Eh, jambar ñoomit dañoo tembo benn ak benn fii ci stat la joor seneps bu ciees eh, dafay dalal ais eh, douane dañoo tembo kenn dugalu dara ci sa kaw morom seneps nak di wëy di am ay jafe-jafe bu fekkee ne sax ci match bi amoon na opportunité pour dugal ci dernière minute yi sax amoon nañu occasion bu baax pour mën a dugal but bi wante dañ koo laj ba tax na kii di seen entraîneur di gëw su dramé japp na dal xalé yi dañoo tuuti te ci ñang lañu nekk wante nak laaj nañu gaaw yew eh, match bi ku ko sétane xamni tamit seneps moron na mëna yobbu 3 points metam boy koy sétam da ngay xamni eh, ba legi dañu yor ay xalé eh, ñi koy défar nak parce que dugal bi bi mo ñu te ñi koy défar fuñu entraînement bo len fa fekke da nga nan bus ñi buñu démé samedi wala dimanche ki ñi footballer dañ koy ray mais suñu ñëwé fi bon day melni ñeneen xalé ngay gis man bi ñu fubalee 15 minutes rek nee naa ñi ma toogal mais man sama attaque bi xàmmeetuma ko parce que kenn nangootu sax dem xaw ma lan moo tax bon mën na am nag euh, miinaguñu public bi ñuy fubalal parce que ñun danaa daan fubal ci terrain boo xam ne presque kenn du fa nekk booy seet daaw ak daaw jóg yëpp bi CNEPS di na jóge national di dem Ligue 2 di jóge Ligue de di dem Ligue 1 yëpp danaa fubal ci dëkk jàmbur bu ñuy football ñett ak juróomi nit ñoo ñuy seetaan ñu football ci suñu teey xel gañe gaay ñibbi xëy na ñi ñuy ñëw di leen seetaan ñu xam leen ñuy seen mbokk yi di leen puus ñoo leen di ñoo la ñuy bëgg a bégal ba faf dañuy faf di raté seen occasion si c'est pas loolu ci man samay samay argumentation la bokk rek waaye loolu defe naa ni eh, war na am leneen lu ci nekk bu ñu demee nag dañuy liggéeyaat gën a defar bon di ñaan aussi Cees waay ñu patienté te jàpp ci rek seen équipe la euh, ñun bu ñuy football pour région de Thiès tax euh, lu ñu xam lu ñu mën dinañ ko ci def pour satisfaire leen. nattaangoom di Joseph Wagane Senghor moom jàpp na ne daal CNEPS équipe bu jafe-jafe footballeur la wante nag tembo bi jàpp na daal tembo bu baax la pour ñaari équipe yi parce que euh, ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk def nga li nga waroon a def ci jongante bi Joseph Wagane Senghor mooy entraîneur ice AS Douane. tey am nañ satisfaction parce que bi ñuy avant ñuy jouer semaine passée dañu defoon. 6 matchs encaissés, ben but cassé. Donc nous jouons bien le match, c'est le match l'équipe a 4 buts. Donc on nous football, retrouver ce nous vertu, ce nous fondamentaux Le football avec l'équipe de comme des compacts du football, des gars compacts. Et si bien bloc bi, les jeunes travaillent, ils sont agressifs, ils Donc nous a une l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de keroog kenn xamewul équipe bi tay au moins lolu motif satisfaction la benen bi moy tay sur le plan offensif aussi am nañ ay opportunité bon précipitation yàkkamti dougal manque lucidité moo tax dugaluñ ko mais moy lu may wax rek football Sénégal mom euh, jour dañuy téla faté y a pas d'acquis li nga am tay sa équipe de dougal 4 bi nga yaakaar sur le plan de la finition tay tout est ok mais dans le médecin vous bu stop doo xamee kii donc toujours recommencer reprendre le travail je crois que lolo ligue bi. Ligue 2 bi EJ Fatick dafa daan Sonacos ben bal ci dara Demba Diop dafa daan Géejawaay ñaar bal ci dara Duc ak jamono Fatick dañu tembo ken dugul dara sa kaw morom keur Madior fële ci Caroline Faye dafa tembo ak US Ouakam ken dugul dara ci sa kaw morom ci euh, stade la Dior nag ñaari équipe Thiès yi muy Thiès football club dafa tembo ak Renaissance ben ak benn Amitié football club. noonu la def moom it dafa témboo ak poor kenn dugalul dara ci sa kaw ki nga xam ne nag moo am jafe-jafe bu métti mooy Africa Promo Foot dafa dem fële ca euh, stade Mawade Wade ca Saint-Louis jële fa ab mbéj bu métti Linguère da ko daan ñeent bal ci euh, benn muy daanu bu méttee métti ci côté Africa Promo Foot ci national un bi nag euh, poule A bi Kayor Foot dafa daan Wally daan ñaari bal ci dara Gazelle bu Kédougou daan Yégo ñaari bal ci benn Kaffrine daan Lusitana benn bal ci dara ci poule B bi Darou Salaam dafa daan Stade de Thiaroye ñett bal ci dara et que Assur bu Richard Toll moom ak US Rail dañoo témboo ku ci nekk benn bal la dugal ci sa camp morom jamono Fatick moom ak Etix noonu la ñu def ñoom it benn ak benn la ñu mujjee Agel ak Racine bu Dakar kenn dugalul dara ci sa camp morom ci national 2 bi lañ koy jeexale ci poule B bi Toglu Dias dafa daan ngelamu ñett bal ci benn ci poul D bi nag Damels bu Tiwaawoon dafa Tembo ak Asfa benn ak benn ñu jeexale ko programme. ak euh, basketball bi nga xamné dina door euh, ci ayu bés bi sen première journée ci góor ñi nag fii ci stade la Dior lay amé AS Thiès dina dal ASC Ville de Dakar et que USRA day dem fekk fële deux ci première journée bi.